tax na kon nag lii farata rekk mooy farata li may ñaan nag Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane dafa mës ñëw Tiwaawan ci gàmmu Sëriñ Abdou gàmmu bu nga xam ni xaal dëgg la fa ñëwee jokk naa ku ko fàttaliku ndax ay période du élection la woon ci yëngu lool ndax élection ba élection yi passé mu ñëw Tiwaawan ca gàmm ba waaye dégg naa mu wax ca ñaari baat ba ñett bu jëkk bi mu ni ku yar sa junney moroom ba ngaa xam ni du sa moroom baat boobu dégg naa ko ci moom keroog ñaareelu baat bi mu ni diwa ma féef am na ku mu jekkul ci moom ndax dañuy natt ki la féef ak ki mu la féef ci moom ndax ñoo tolloo wala déet mu ne bu ñu tolloowu rekk am nga tor mu ni bu ñetteel bi nag waxuma la yéen ñiy tuddoo seen boppu njaboot yi waaye sëriñ Mansour mii toog ak sëriñ Abdou mii toog lay yëgal ni leen sëriñ Babacar soppiku na kon waxuma la njaboot waaye ñoom ñii kilifa yi bu ñu soppikuwul dinañu tardé mu mel ni loolu mu waxoon nag mu ngi ci bàmmeelam mais moom it mu nga ca ne nit ñi am beneen comportement te nit ñi it am beneen taxawaay te nit ñi it am vision parce que boo amul vision doo xam fooy jëm lu ñu wax rek nga ni aha baax na déedéet waaw am na foo xam ni moom boo waree nangu ndigal bu la ko kenn jàngal mais am na foo xam ne bu fekkee ni ma riirandoo rek la doo riirandoo waaw waaw ndax li sëñ Cheikh di wax ne bala ngay daw xam li lay dàq lan la